Ah, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, nuyu mbokk téléspectateur yu Thiénaba TV ah, jiital ci nuyoo bi bàyyi sëriñ Abdourahim Seck xalif généralu Thiénaba di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ak lépp lu mu jaboote waaye jël nuyoo kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di ko teg ci loxoom di nuyu njabootam jaar ci sëriñ Cheikh Amadou imaamu ratib bu Thiénaba ak le chef de village sëriñ Alsane Niane ak njaboot gi nga xamee ni macha allah euh, mooy njabootu maam Ahmadou Ndak ak njaboot gi nga xamee ni njabootu euh, deret gi lañ wala njabootu leer gi nekk ci canaba wala ñu nekk bitib canaba euh, nuyu autorité administrative yi nga xamee ni ñoo nekk ci réew mi jaar ko ci le monsieur le maire Talla Diagne premier magistrat de la commune jaar ci monsieur le sous-préfet moo ñuy yóbbu nag ba ci son excellence le président Macky Sall di nuyu téléspectateurs yi nga xamee ni saa su nekk ñoo ñuy gunge. Euh, am nañ mbégte teew fii euh, ci kanamu suñu kilifa Baye Serigne Abdourahim Seck euh, ànd ak délégation bi nga xam ni moom moo jóge ci monsieur le maire Talla Diagne jiite ko Serigne mamoor Seck mi nga xamee ni macha allah conseil municipal la moom moo nekk ci diggante maire yi ak kilifa diine yi macha allah waaye mu ngi ànd ak Serigne Adama Diop di directeur wu cabinet monsieur le maire waaye ànd ak Serigne Ibrahima Diagne. Euh, moom mooy président mouvement ànd fal euh, falaat euh, monsieur le maire Talla Diagne ànd ak sëriñ Ibrahima Dieng moom mu nga xam ni moom tamit mu ngi ànd ak ñoom ci délégation bi ak ñeneen ñi ñu àndal ñëw nag doon indi xarum tabaski fii ci kër gi indi ko indil ko seen waajur waaye indi ko suñu kilifa muy bàyyi sëriñ Abdourahim sekk bi ñëwee fekk nañ fi njaboot gi fekk fi sëriñ Ibrahima Seck di doomam waaye fekk fi tamit sëriñ Mouhamed Seck Euh, macha allah fekk fi njaboot gi sëriñ Alioune Ndoye ñoom ñoom ñëpp ak sëriñ As ak euh, sëriñ Ousseynou Seck ak sëriñ Ndiaga Makhtar ak sëriñ Abba Dia ñoom lañ fi fekk ñu toog euh, macha allah di wettali góor gi. du ñu guddal nag ci wax ji dañuy jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni moo jiite délégation bi muy sëriñ Mamour Seck mu yëkkati ay kàddoom bu paree rek ñu xool kan moo ci teg ay kàddu bu ko defee bu ñu demee ba ca cat la. Euh, Baye Serigne Abdourahim euh, ñu tàllal ko loxo mu ñaanal ñu lu mu ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci bark Seydina Mohamed sallallahu alayhi li ci sangu-sangu ñu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa ngi ñaan ndigal suñu góor gu baax kii di xale si ndaral ci ramba suñu Baye Abdourahim Seck ci kàddu yi nga xam ne moom la ñu bëgg a yëkkati ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare di la ñaan di la ñaan yàlla jàmm ak sutura ak mucc di ñaan suñu toogaay bii ñu toog fii. yal nañ ko yàgg a toog ci yow lool te fekk la fi waaye yal na ko jàmmulal ak sutura ak mucc liggéey bi nga xam ni moom nga toog fii di ko liggéeyal sa maam yal na suñu borom bi mottali la ko ah, di sant yàlla bu baax a baax nag ndax li ñu sant yàlla mooy dañ ñëwoon daaw fekk ko fi mu ñu ñaan nga yàlla suñu borom bi nangu na ko yal na ko yàlla gën a mottali ñu it bañ fi jigéen bi ñu it ñu amoon yéene ñaanal ñaanal ko ñëwaat fi fekkaat ko fi kon yaakaar naa ne ñaan nga nangu na ñuy ñaan yàlla nag ñaan yooyu yan na nekk ay junni junniy ñaan ñoo ñëw di la fekk waaye yan na ko jàmmulal ak wér ñu lay ziar bu baax nag di am kontante ci ñëw fekk la fii ndax ndongo moom su jógee jëm ci kër sëriñam yaakaar naa day sawar surtout nag bu dem fekk sëriñ ba toog di ko xaar li njëkk a jéggul mooy toogaay bi nga xam ne moom lañu fekk fii mu xaw a yàgg lool euh, kàddu yi nag du gudd kàddu taalibe rek ci digganteem ci taalibe ak sëriñam waaye kàddu la yoo xam ne tamit boo xam ne nii dafay yónnee ay ndaw ñu dem séddale ko sëriñam ñu andiwoon ko addiyam joo xamante ne nii addiye jooju kat da koy joxe ngir lan ngir sëriñ kat daa am loo xam ne da koo war ci bis boo xam ne bisu diine la bisu lislaam la ñun ñëpp kenn ku ci nekk waroon a mën a làmb sa poos wala nga yiw am xar andil la euh, ni ma koy wax toujours rek fii moom lu fa waay indi moom say ko say boo nga bañ koo naw te xam ne kër la goo xamante ni lu fa waay andil new na nga jàpp ne sa bopp nga ko defal te yàlla suñu borom ñëwul bor daa am lu ko faye ñi nga xam ne ñoo neex a jot nag mooy kilifa goo xam ni soo ko joxee lépp loo ko jox bu dee benn faaw mu teg ci fukk ndax am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi toog ci wetam di ko xaar ku mel ni suñ kilifa gi ci la bokk baay bi yàlla nga fi yàgg lool te yàlla yàlla def sa wér fan wi gudd lool ànd ak jàmm Moussa Mer moo ñu yónni woon di sa xarit démb waaye di sa doom démb waaye di sa taalibe tamit démb ak tey ko ñëw mu jëloon teraanga ñi teg ko loxo ñu ànd ak Adama Diop mii nga xam ne lépp meer la nekk sa xarit lool démb tey soo ko ñëw ci yaram ak tegginam yal na ko yàlla gën a taxaw xam naa ne li may wax ci moom yaa ma yaa gën a xam ci biir ak ci biti yaram ak tegginam may na ko lu nekk maire boole ñu tamit ak doomam Ibrahima jaañ mii nekk doom ci monsieur maire waaye am yar ak teggin lool ñu ànd ak ak Ibra Dieng naa ñu fi ànd ñi ñu fi ñi ñu fi fekk ñëpp nag daanaka mën naa ci délégation bi lañ bokk waaye nag di nuyu tamit sëñ Ibrahima Seck mi nga xam ne sa taaw la waaye nekk suñu xarit nag lool nag di nuyu sëñ Ndiame Gueye mi nga xam ne moom lañ fi fekk ak Aliou Ndoye ak ñoom Abadia ak ñoom Asmoub ak ñu fekk ñëpp wax dëgg yàlla daal bi ñu ñëw fii di ñu jëm si yow dañoo ànd ak cawarte gu mat sëkk nag te xam ne li li nga xam ne moom lañ fi fekk si mooy fekk nañ fi xol bu yaatu fekk nañ fi ku am yërmande fekk nañ fi nituk jàmm fekk nañ fi nitu teranga loolu nag waxuñu ko ngir liñ toog ak yow ndax dañ ko dund ak yow démb tey soo ko ñëw maire nag nee na lépp loo xam ni yàlla dogal na mu yëkkati ko teg ko sa loxo nee na da ko def ak yéene waaye nag xeem na ko lool ndax taxawaay dafa dafa ci moom démb tey soog a ñëw li nga xam nag moom lay sàkku nag bis bu nekk nga xamante ni laata yàlla di la jox barab bii nga toog fi da ko daan ñëw di la fekk fa nga nekkoon daa ko sàkku ci yow muy talal ay loxo di la di la sa wet lépp loo xam ne da nga ko soxla suba ba ngoon loo ko ci sant dina ko def lu ñu ñaan yàlla nag yàlla suñu borom bi dool ko taxawu yàlla dool ko jàppale nit la koo xam ne nag moom it ku am yéene la ku am xalaat la waaye tamit xol bu rëy la ko yàlla suñu borom bi jox moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yan bi ko yàlla suñu borom bi yan ak yéene ji nga xam ne am na ko ci diina ji waaye am ko ci commune bi yàlla na ko suñu borom gën a jàppale bu baax a baax Baye Abdou daal cant ak ngërëm mënut a weesu cant ak ngërëm man li ma bëggoon sax bu ñu ma ko moyoon mooy bu ñu xasee agsi ba agsi fii rek ba nga gis li nga xam ne moom la ñu fi indi rek dañuy tala suñu loxo rek nga ñaan lañu ñu dem ndax ñun ñaan gi la lañu soxla sekk yal na yàlla guddal saw fan yal na yàlla la jàmm njaboot gi xam ne ñoom nga jëlif ñoom ñëpp yal na yàlla gën ñoo jox xol bu ñu ba li nga xam ne moom la ñu tataan ci kilifa diggante kilifa ku taalibe yàlla suñu borom yi may ñu ko ñu rot ci sa wet ndax rot ci sa wet rek mooy suñu njëriñ tey mooy suñu njëriñ ëllëg ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm ak sutur ko yàlla boole di nuyu ñu fi toog ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu mbooloo mi yëpp euh, mbooloo mi sëriñ Mamour délégation bi yàgg ñu ngi àndal ñëpp sëriñ Modou ci kàddu kilifa gi mais muy wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi kàddu yi Baye Serigne bi Baye Serigne noo ngi kàddu yi Baye Serigne Abdourahim Seck Seexu Canaba. yal na ko yàlla dolli na yàlla dolli ko sutura. ko yàlla dolli na yàlla dolli ko ay ndam. yal na yàlla dolli ci njaboot gi. yal na yàlla dolli ko sagal ci njaboot gi. njaboot gi itam. njaboot gi itam. yal na leen yàlla dollee seen kilifa. yal na yàlla dolli leen sagal ci seen kilifa. ci barke yonent bi sallallahu alayhi. barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ngi nuyu délégation bii ñëw. baa ngi nuyu délégation bii ñëw. ci doomam xaritam. jóge ci doomam doom yi boppam te doom yi boppam jiite ko. yëkkati kàddu yu rafet yi. yëkkati kàddu yu rafet yi. Serigne Mamor. Serigne sa way jur nee na. sa way jur nee na. la yàlla taxawu yewit. yal na yàlla dolli la taxawu yewit. yal na yàlla dolli say sutura. yal na yàlla dolli say sutura. nee na ñaan yii nga ko ñaanal. nee na ñaan yii nga ko ñaanal. ko ci sa xol. tibbe ko ci sa xol. yal ko yàlla nangu. yal ko yàlla nangu. yi leen di delloo. moom tam ñaan yi mu leen delloo. tibbe ko ci xolam. tibbe ko ci yàlla na ko yàlla nangu. yàlla na ko yàlla nangu. ñu ngi lay nuyu bu baax. mu ngi lay nuyu bu baax. di nuyu itam sëriñ Adama Diop. mi di nuyu sëriñ Adama Diop mi nga àndal. moom it di kenn ci monsieur le maire. moom it di kenn ci monsieur le maire. ci di ko taxawu. ci di ko taxawu. di ko jàppale. di ko jàppale. dimbali. di ko dimbali. ci liggéey bi ko suñu borom. ci liggéey bi suñu borom yan. di nuyu doomam Ibrahima di nuyu doomam sunu xarit Ibrahima Diagne. di nuyu Ibrahima Dieng. di nuyu Ibrahima Dieng. kenn ci monsieur le maire. di kenn ci monsieur le maire. tabaarakallah macha allah. tabaarakallahu macha allah. di nuyu Serigne Ndiame Guèye. di nuyu Serigne moom it wàccuwaay bi ngeen am rek. moom it bi ngeen am. moom rek la fi am. moom rek la fi am. bi ngeen ñëwee itam. bi ngeen ñëwee itam. ngeen fekk fi njabootu sëriñ bi. ngeen fekk fi njabootu sëriñ bi. ñu dalal leen. seq ak yéen jotaay bi seq ak yéen jotaay bi. sëñ Ibrahima a ngi nii toog. di sunu kilifa. di sunu kilifa. ak sëriñ Xuseynu. ak sëriñ Xuseynu. sëriñ Maodo. sëriñ Maodo ngi ni toog. sëriñ Abba Dia. sëriñ Abba Dia. sëriñ Haas Mbuub. sëriñ Tamimu. ba ci Seydina Aliou mu ngi nii toog. mu ngi nii toog. ñu àndandoo seq jotaay. ñu ànd seq jotaay nga xam ni. jotaayu teraanga la. la. kon Baye Serigne bi mi ngi ciy bég lool. Baye Serigne baa ngi ciy bég lool. ci kontaan. mu ngi ci kontaan. tey ñaan yàlla. ne mu ngi ñaan si yàlla. nii ngeen ko ñaane léegi. nii ngeen ko ñaane léegi. nañ ko yàlla nangule noonu. yal ko yàlla nangule noonu. ndax jotaay bii kat. jotaay bii kat. toogoon nañ ko fii daaw. toogoon nañ ko fii daaw. jokkalante teraanga yii. jokkalante teraanga yii. mu rafetoon lool. mu rafetoon lool. sëriñ bi sedd lool xolu sëriñ bi sedd lool. jëm ci njabootam. jëm ci njabootam. suñu borom mi nga xam ne. suñu borom mi nga xam ne. moom moom. moo moom. moo sañ. moo sañ. nu may ñu teewaat ko. moo nu may ñu teewaat fii. ñu teewaat ko déwén. ñu teewaat ko déwén. jataay bi rafet lool. jataay bi rafet lool. yàlla na nu maye noonu. yàlla yàlla maye noonu. nu teewaat ko déwén. nu teewaat ko déwén. ak wér. ak wérle ak sago ak sago ak xel mu dal ak xel mu dal ak teraanga ju yokku ak teraanga bu yokku teraanga ji ngeen indi teraanga ji ngeen indi nag jébbal si ko Baye Serigne Thiénaba jébbal si ko Baye Serigne Thiénaba Baye Serigne Thiénaba mu ngi tàllal ñaari loxoom Baye Serigne Thiénaba ngi tàllal ñaari loxoom di ko ko nee mu ngi ko koy nangoo ndax ndax teraanga ji teraanga ji mu toll nii mu toll la ngeen yéene ci seen xol. la ngeen yéene ci seen xol. Alaaji Taala Jang yéene ko. Alaaji Taala Jang yéene ko. xam na ni ëpp na ko. xam na ni ëpp na ko fuuf. te nit nag te nit. bu la joxee teraanga. su la joxee teraanga. nga yëg ni. nga yëg ni. la mu yéene ci ab xolam. la mu yéene ci xolam. moo ëpp lam la jox. moo ëpp lam la jox. teraanga ja day mat sëkk. teraanga ja day mat sëkk. day rëy lool. day rëy lool. ab xolam. nee ab xolom ci diine ji ci diine ji. bàyyi sëñ bi xam na ko. bàyyi ab xolam. ci kër gi. bàyyi sëriñ bi xam na ko bàyyi sëriñ bi xam na ko. ab xolam ci bàyyi sëriñ bi. ab xolam ci bàyyi sëriñ bi. ak yéeneem ak jëfam. yéeneem ak jëfam. loolu lépp loolu yëpp. bàyyi sëriñ bi xam na ko bàyyi sëriñ bi xam na ko. kon lu mu def rek. kon lépp lu El Hadj Talla def. di ko xeeb moom. di ko moom. bàyyi sëriñ bi moom naw na ko. bàyyi sëriñ bi naw na ko. ndax noonu la ko yàlla bindee. ndax noonu la ko yàlla bindee. kon yàlla na ko yàgg indi ci. yàlla na ko yàgg indi ci barab bi. yàlla na ko yàgg yàlla na ko yàlla wuutalal. yàlla na yàlla wuutalal ko lu baree baree bari. lu baree baree bari. ci barke. si barke. ak ci xéewal ak ci xéewal. ak ci sutura. ak sutura. ak teraanga ak teraanga. yéen ñi nga xam ni. yéen ñi nga xam ni. yéenay ànd ak moom. yéenay ànd ak moom. ci liggéey bi ci liggéey bi. te di ko jàppale. te di ko jàppale. te mosu leen koo yàqal dara te leen koo yàqal dara. jamono bu jotee. jamono bu jotee. xelam ci yéen rek lay dem. xelam ci yéen rek lay dem. ngeen ànd ñëw. ngeen ànd ñëw. andil ko teraanga yéen yàlla na yàlla dolli seen sag yàlla na yàlla dolli seen i sag. teraanga ji nag teraanga ji nag. teraangay diine ji la teraangay diine ji la. ndax kilifa diine moom. ndax kilifa diine. yaakaar yu bëree bari yaakaar yu bëree bëri. ci jaami yàlla yi. ci jaami yi. dafay aju ci moom. day aju ci moom. dafa am bés yoo xam ni. am na bés yoo xam ni. fàttaliku leen. fàttaliku leen. woyefalal leen. ci woyefalal leen. diis diis yooyu. diis diis yooyu. ni ñoom sax. ni ñoom sax. dara du diis ci ñoom. dara du diis ci ñoom. ci wàllu yàlla. ci wàllu yàlla. ci dimbali jaamu bi yàlla. dimbali jaamu yàlla. waaye nag boo amee sa kilifa. waaye soo amee sa kilifa. di ko fàttaliku. di ko fàttaliku. ci yu mel nii. ci yu mel nii. dafay am solo lool. dafay am solo lool. kon nag nekkoon. Alhaji Talla jaañ Alhaji Talla Diagne. ndax lii moom taalibe bu ne. lii taalibe bu ne. bu bëgg sëriñam. bu bëgg sëriñam. yéene nga ko. yéene nga waaye nga yéene ko. yàlla dimbali la yàlla dimbali la. nga man ko nga man ko. ba man koo jëmmal ba man koo jëmmal nag. loolu tawfiixe suñu borom la. yàlla na ko yàlla nangul yàlla na ko ko yàlla nangul. yàlla na ko joxe at yu bare. yàlla na ko joxe at yu baree bari. at yim ko daan jox. at yim ko daan jox. daan ko jox ay kilifaam. daa ko jox ay kilifaam. yàlla na ko yàlla nangul at yooyu yëpp. yàlla na yàlla nangul at yooyu yëpp. ba nii mu yegsee ci bàyyi Serigne bi. ba nii na ko jox at yu bari. na ko ko jox at bari. at mu jot rek. gën a yokk mu gën a yëg ak yokk ci boppam ci boppam gën a yëg ak yokk gën a yëg ak yokk ci njabootam si njabootam gën a yëg ak yokk gën a ak yokk ci yéen ñii nga xam ni ci yéen ñii nga xam ni dafay ànd ak yéen dafay ànd ak yéen ci liggéey bi si liggéey bi kon sëriñ bi sëriñ bi xolam sedd na xolam sedd na guy mu ngi koy ñaanal yàlla mu ngi koy ñaanal yàlla ndax alhaaji taala jaañ wax nga ko léegi doom la doom la xarit la taalibe la taalibe la waaye ab soppe la waaye soppe itam. te muy kilifa goo xam ne. muy kilifa goo xam ni. sëriñ bi mi ngi koy sant bu baax koy sant nag bu baax. ndax nangu naa doon njaboot. nangu naa doon njaboot. nangu na itam sëriñ bi di kilifaam. nangu na sëriñ bi kilifaam. te lépp lu ko sëriñ bi ñaan. lépp lu ko sëriñ bi ñaan it. mu digal ko ko. mu digal ko ko. loola bu ca ak loram nekkee. loola bu ca loram nekkee sax. dana ko nangu. dana ko nangu. ni kilifaam. ni kilifaam. moo ko ñaan. moo ko ñaan. wala moo ko digal. wala moo ko digal. wala moo ko tere. wala moo ko tere. njaboot nag. njaboot nag. loolu rek am ci kilifaam. loolu la am ci sa kilifa. bu la mënta digal. bu la mënul digal. nga def nga def. mënulaa tere mënulaa tere. nga bàyyi nga bàyyi. yaa ko tuddee kilifa yaa ko tuddee kilifa. waaye dara doxatul seen waaye dara doxatul seen diggante. loolu yàlla dimbali na ko ci loolu yàlla dimbali ko ci. na yàgg yàlla na yàgg. yàlla bu ko dara dindi. yàlla bu ko dara dindi. yàlla ko yàgg jamono dindi. yàlla bu ko yàgg jamono dindi. barke yonent bi barke yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. kaddu yooyu daal kaddu yooyu rek. si ak tënk moom lañ doon yëkkati. wuutu ci sëriñ bi wuutu ci sëriñ bi. di ñaan si yàlla. yàlla na ko yàlla nangu. yàlla na yàlla nangul nu ko. yàlla na ànd ak ngërëmam. yàlla na yàlla wuutalal ko. yàlla yàlla wuutalal ko. taraanga ju baree bari. taraanga ju baree bari. joo xam ni. joo xam ni. moom lay joxe. moom lay joxe. ndax nitu taraanga. ndax nitu taraanga. saa bu joxee rek. saa su joxe xolam day gën a sedd. xolam day gën a sedd. kon yàlla na ko yàlla defal. yàlla ko ko yàlla defal. ngeen santal ko ko bu baax. ngeen santal ko ko bu baax. ne leen sëriñ bi. xolam sedd na guy. mu koy ñaanal ñaan mu ngi koy sant. mu ngi koy sant. sant ak njabootam. mu ngi sant njabootam. di sant yéen ñi nga xam sant yéen ñi nga xam ni. yéenay ànd ak moom. kàddu yooyu rek. lañ doon yëkkati. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum. wa rahmatullahi taala. wa barakaatuhu. liggéey bu ne. Euh, sëriñ bi nee liggéey bu ne. am na jaajëf. am na jaajëf. waaye su fekkoonte ne su fekkoonte ni. du loolu. du loolu. damay doyloo. damay doyloo. seen yéene yu rafet yi ngeen. yéene yu rafet yi ngeen ëmb. ba seen kilifa yi yebal leen. ba seen kilifa yebal leen. yëkkati teraanga bu tol nee. yëkkati teraanga bu tol nee. ngeen indi teg ko ci sama loxo. ngeen indi teg ko ci sama loxo. waaye nag tegu leen ko ci sama loxo. waaye tegu leen ko ci sama loxo. ci loxoy diine ji ngeen ko teg. ci loxoy diine ji ngeen ko teg. te diine ji day. te diine ji day. gannaaw la goo xam ne. gannaaw la goo xam ne. loo ca teg. lépp loo ca teg. attan na lu ko ëpp. attan ko ëpp. yàlla nangul leen ko. yal na leen ko. yàlla barkeel ko. yal na ko yàlla barkeel. yàlla gën leen sàmm. yal na gën leen a sàmm. yàlla gën a sàmm seen wërsëg. yal yàlla gën a sàmm seen i wërsëg. yàlla gën leen a bàyyi ak seenum xel. yàlla gën leen a bàyyi ak seenum xel. seen pas-pasu ngëm. seen i bu ci seytaane am wàll. yàlla bu ci seytaane am wàll. yàlla yàgg jamono soppi dara sunu xol sedd na guy. sunu xol sedd na guy. waaye nag sant nanu. waaye nag sant nanu. ndax da ngeen a toogoon fii daaw. dangeen ngeen a toogoon fii daaw. indi ko. indi xar mii. daaba ju tol nii. daaba ju tol nii. ju mel nii. ju nii. ngeen indi ko. ngeen indi ko. ak njëkk. ak njëkk. ak teraanga. ak teraanga. teg ko ci sama loxo. teg ko ci sama loxo. ma tegal leen ko. ma tegal leen ko. ci loxoy diina ji. ci loxoy diina ji. rëccuwu leen ko. rëccuwu leen ko. waaye rëccuwu. nun tam rëccuwunu ko. yal na yàlla fay leen. yal yàlla fay leen. jaa jëf. jaa ngeen jëf. kontaan nanu. bi ne kontaan nanu. Ah, tey moom. tey moom. daa am fondation. daa am fondation. fondation bi mooy. fondation bi mooy. damaa yónnee woon wura Mahdiyu. damaa yónnee woon wura Mahdiyu. ñu dem seeti góor ga. ñu dem seeti góor ga. yët ko. yët ko. lu mel ni. lu mel ni. lii ngeen ma yët. lii ngeen ma yët. ndax. ndax. su fekkonte ni. su fekkonte ni. seen lii daa jëkkoon na ñëw. lii daa jëkkoon na ñëw. kon yàlla mën naa dogal. kon yàlla mën naa dogal. mooy dem. moom mooy dem xar mi. bu ko defee. su ko defee. taala day am eh, yéene eh, jëfi ëtt bii. taala day am jëfi ëtt bii. ak jëfi ëtt bële. ak jëfi ëtt ba ci oro Mahdi yu. waaye nag. Eh, lama fa yóbbu. la ma fa yóbbu. ka ko sonne. ka ko sonne. ba teg ko ci sunu loxo. ba teg ko ci sunu loxo. am na yéen eh, eh, eh, jëfi dëkk. am na pàkk bii am na jëfi pàkk bii. am na jëfi pàkk wu Mahdi yu. waaye yow itam. waaye yow itam. sa daaba ji. sa ji. muy fii. muy fii. muy feneen. muy feneen. lépp. lépp ci diina ji la jëm. ci diina ji la jëm. waaye nag. waaye nag. Seex Canaba daan wax ni. Seex Canaba daan wax ni. nappandoo ñaari jaar. nappandoo ñaari jaar. Euh, mëneesu ko ci wàllu àdduna. mëneesu ko ci wàllu àddina. waaye nag wàllu yàlla. waaye wàllu yàlla. mënees na ko ci. mënees na ko ci. fu mu tëdd daal. fu mu tëdd. yàlla na fa tëddee. yàlla na fa tëddee. am njëggal. am njëggal. akug yokku. akug yokku. akug wér. akug wér. ak sàmm goo xam ne goo xam ne. dara dootu ci ayib dara dootu ci loolu daal ne loolu daal. maa ngi ko koy ñaanal maa ngi ko koy ñaanal. di ko ñaanal sama uh, bopp. di ko ñaanal sama bopp. di ko ñaanal képp ku doxee. di ko ñaanal képp ku doxe jéego bii ngeen dox jéego bii ngeen dox. yàlla nan ko muurloo yàlla nan ko muurloo. yàlla nan ko yàlla nangul yàlla nan ko yàlla nangul. kontaan nanu bu kontaan nanu bu baax. li ma leen ni tey. li ma leen ni nag tey. daa xaw am fondation. daa xawa am fondation. Ibrahima ñoom a ngi nii. ñoom sëñ Ibrahima ngi nii. jóge wuro Mahdiyu ñëw ñëw kon tey kon tey ku fi indi teraanga ku fi indi dees na tudd wuro Mahdiyu dees na tudd sa teraanga boobu tudd sa teraanga boobu yàlla yéegal ko ca yàlla yéegal ko ca loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm ñëpp santaan ñëpp sëñ Mamor. sëñ Adama Diop. sëñ Adama Diop. Ah, ak ñi ngeen ko àndal. ak ñi ngeen àndal. Ibrahima Diagne. sëñ Ibrahima Diagne. di sama sët di sama doom. sama sët sama doom. ndax moom. ndax moom. tabaarakallah. tabaarakallahu. baayam li ci Mamor wax. baayam li ci sëñ Mamor wax. doy nay wax. doy nay wax. taala. taala. bu la joxoon milliard. bu la joxoon milliard. da lay wóor ni. da lay woon na milliard. yéene woon na milliard. ak genn wàll. ak genn wàll. ci sa loxo. ci sa loxo. bu la joxee bu la joxee téeméeri dërëm. dërëm. da lay wóor ni da lay wóor ni. yéene na la yéene na la. ñaari téeméer ñaari téeméer. taala noonu la ko yàlla taala noonu la ko yàlla bindee. la lépp lu la jox. daa yor jikkooy sëñ Ibrahima Seck daa yor jikkooy sëñ Ibrahima Seck. la jox la jox. dig na la dig na la. te di la soññ. te di la waat nga jël siwaat nga ko. yooyu jikko la yor yooyu jikko la yor. seede nañu ko. nee loolu seede ko. kon alhamdulilah. wax ji su baree. sunu xol daa sedd. sunu leen ni woon nii seeni loxo. war ngeen a xam ni war ngeen a xam ni sama xol daa sedd. jaa ngeen jëf yàlla nangu. yàlla yàlla nangu. ci zaahir ak si baatin. yàlla nañ teewe dewen. yàlla mucc ci zaahir. mucc ci zaahir. mucc ci baatin. teraanga yi. teraanga na yàgg am. yàlla na yàgg ngeen ko yàgg andi. yàlla na ngeen ko yàgg na ngeen nu fi yàgg a fekk. na ngeen nu fi yàgg a fekk. nu leen ko seedeel. nu koy seedeel. ngeen di ko teg ci sunu loxo. ngeen di ko teg ci sunu loxo. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf كيد من شر ما خلق مثله يا الله يا خادر يا مريد يا هالي يا حي يا خيوم يا سميع يا بصير يا متكلم امين يا برحان يا متم يا مدرك وباق اسمائك يا الله تنهي ما اسالك امين يا برحان امين اللهم اني اسالك من فكرتك امين يا رب العالمين يلا يونس بركه لمن المادي بركه شيخ امين بارك الله